justice bañ a nekkati une justice boo xamante ni dafay euh, influente mais aussi tamit nekk mu bañ a nekk justice boo xamante ni dafay faible est-ce que gage la boo xamante ne nii euh, en tant que ku bokk ci exécutif war na mën a normalement dalal xel ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk euh, acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci justice bi. xam na dafa am ko fàttali démb ne ni c'est le président Abdoulaye Wade qui disait aux <clears throat> magistrats ne leen mais vous voulez votre indépendance prenez votre indépendance. ñu dem ba ci biir ñu ne leen non euh, magistrat yi bëgg nañu indépendance boobu mais day fekk ñu am déjà aussi lu ñu woowee benn genre indépendance financière boo xamee ni ñoom te la ñuy liggéey duñ ci xaar euh, loxo yi exécutif mais il faut que nit ñi fàttali ni muy ñetti pouvoir yi exécutif législatif judiciaire dañuy am rapport boo xamee ni mu gudd mu bari wala mu mu mu mu mu yaatu faw rapport mën a am parce que tey bu ñuy fay salaire mu ci exécutif bi mu ci législatif mu ci judiciaire mais fan lay jóge ci gaf réew mi lay jóge gaf réew mi fonctionnement wu réew mi exécutif moo ko yore ci lan lay basé wu mooy législatif pour yenn yi ñuy voté bu ñu la voté budget euh, ci assemblée nationale euh, mu am euh, ay loi de finances rectificative ak yeneen yoo xamee ni mu ngi jëm ci nan la ñuy nattee xaalis bi nga xamee ni mu ngi ci biir réew mi ci gafak réew mi wala ñu war ko wuti euh, ci bu ñu nattee xaalis boobu nii euh, nga xam ne ñoom ñooy député yi ñoom ñooy voté yi lu jëm ci wàllu koppar député yi tamit ñoom ñooy voté loi yi nga xamee ni magistrat yi ñoom ñoo koy appliqué mooy leen lu jëm ci code pénal code de procédure pénale ak yeneen yi nga xamee ni bari na ay code ci wàllu code environnemental ak yeneen ak yeneen yoo xamee ni ba ci tey code de la presse lu ci bari lépp daanaka ci député yi ñoom ñoo koy voté donc faw mu am benn imbrication wala benn partenariat ci diggante pouvoir yooyu ci suñu réew nu muy nu muy doxee indépendance totale boo xamee dañ naan non euh, doo leen ñu sax fay ñu ñooy fay suñu bopp ak yooyu àgguguñu foofu mënaguñu ko xam lu ñu mën fu ñu toll nii mooy euh, am na ko koy wax euh, justice bu ñu nee justice amul indépendance sii nit yi kay incarné la ñuy wax ndax am nañu indépendance wala am ñu indépendance mais combien de juges ou de magistrats euh, ak yu ne mel ñoo xamee ni mais seeni kàddu démb ba tey nit ñi dañ koy jël di ko jàngee ci école yi parce que kàddu yu ñu doon joxe ak euh, euh, yenn ci ay lu ñu woowee cour magistral bu ñu ko daan def wala yooyu nit ñi dañ ko doon jàpp xam ne ñii de ay magistrats lañu yoo xamee ni seen loxo set na mais la amoon ci jamono yi baa mbay moom moo fi nekk ba tey y des juges qui sont euh, pour ne pas dire que c'est même la règle l'exception c'est peut-être ci la ma jàpp mooy ñenn ñi nga xamee ni ñoom ñoo buggul seen indépendance su bopp te suñu nee indépendance su bopp ñoom ñoo ko buggul mooy ñi nga xamee ni dañ jàpp ni faw ñuy def loo xamee ni dafay neex nguur te loolu foofu la problème bi nekk ba muy am benn euh, xal ñaar boo xamee ni sénégalais bi da koy am ci seen justice mu am benn ñàkk wóolute bu am mais ñàkk wóolu bi yëpp lan moo koy indi ci ay dossier politique très souvent dossier politique donc ngay gis ay ñàkk wóolu mais combien de jours combien de fois ak combien de dossiers ñu ngi koy traité jamono ji ci tribunal du commerce par exemple yan ñaata dossier la ñuy traité fi ñuy toll nii ci un citoyen Euh, lambda wala ay détenus de droit commun yoo xamee ni ñu ngi koy jàllale peut-être ci loolu dañu la naan dafa am ay longue détention dafa am euh, ñàkkum euh, jàppale ñii di ay détenus par rapport ak fa ñu nekk ak yooyu mais gis nga indépendance la justice boobu ci biir conseil supérieur la magistrature ak yu ni mel mais tey waratuñu dégg ay consultation à domicile war nañu xool ñoom seen biir en tant que magistrat ñu ne mais Cheikh Diop wóolu nañ ko par rapport ak nangam ci ancienneté ci ay parcours am ci ay diplôme nañu ko jël teg ko ñun en tant que magistrat nañ ko jël jiital ko ce n'est pas à un non magistrat wala koo xamee ne xamul ci magistrature dara boo mettu loi benn loi la xam wala ñaar du moom mooy lijjanti lu soxal ñi nga xam ni ñoom mooy seen métier moom lañ jàng moom la ñuy nekk di exercer depuis des dizaines d'années pour certains mais loolee yëpp lan moo ko indi mooy fexe ba lii may wax nii mooy conclusion assise yi parce que ñoom ñoo ci waxtaan seen biir doon lu ñuy wooye ay sachants pas seulement des savants ñoo xamee dañ koy bind liir ko mais ñoo xamee dañ koy pratiquer xam ko ñooñu ñoo mën gannaaw assises yi ak gannaaw conclusion yi nga xamee ne fasal nañ ko démb ci ngoon jébbal ko njiitu réew mi mais mu appliqué lu ko et puis bon euh, on continue à euh, gérer notre justice mais surtout ñu mën a gën a am confiance ci justice tey combien de Sénégalais on euh, un avocat ba ñu mën a waxtaanal alors que chaque jour nga dégg ñu ne la am na benn cohorte bu génn ca euh, université am na ñoo xamee ni euh, dugg nañu intégré nañ le barreau am na ay étudiants yu nekk ci wàllu euh, greffe am na ay étudiants yu nekk ci nangam waaye ñooñu ñëpp bu ñu génnee est-ce que dinañ leen jox liggéey bi ñu soxla pour mën a justement combler yenn ci ay gap yi nga xamee ni ñu ngi koy remarqué ci lu soxal lu ne mel c'est pas parce que danga am benn conflit avec la justice que damay woo avocat. tu dois pouvoir avoir un avocat régulièrement à tes côtés wala un avocat boo xam ne di nga ko mën a consulter mais surtout tey jii ngay ñëw di signer benn contrat ak leeral mais war ngaa am benn avocat boo dendal boo xamee ni dina ne attention clause yi nii d'accord ma ci nañ ko xolaat ba nga xamee ni yow booy signer contrat da ngay signer contrat ndax. Euh, ka nga nekkal xam na ci mbirum contrat dara xam na ba ci virgule bi ñuy dugal ci contrat bi ndax virgule bi fi ñu ko teg ndax baax na wala baaxul ak ban jeexital la la mën a amal mais est-ce que am na ñun euh, culture boobu en tant que sénégalais no am na réew yoo xamee ni mais doo def dara te doo woo avocat doo def dara te doo woo un conseil juridique tey war na am ay boutique de droit yu gën a bari ci Sénégal nga xamee ni citoyen bu mu mën a doon bu amee benn jafe-jafe wala benn lu ëlëm xelam mu mën a dem ci butique de droit boobu mu ne ne man de lii mooy sama cas mu am ay conseillers juridiques ay nit ñoo xam ne loolu mooy seen spécialisation ñu mën ko orienté ci par rapport ak yenn yi peut-être loolu bu ko demoon dinañ dem ba benn moment pour dem ci ay kaso wala pour ñu ne kii daf ma porter plainte dina am ay négociation yu mën a am négociation pénale da nga ko fi gis gis nañ fi nit amel naa diw nangami million Euh, nga dem yàlla a le cas de euh, comment il s'appelle Doro Gueye mais nga dem ñu mën la wax ne la avant sax ngay àgg ci yoon am na ay boutique de droit yoo xamee ni mën nañu seet nu ñu leen di jubóole wala nu ngeen di waxtaanee bu juboo ba nga xamee ni dootuñu ko fësal ngay dem ba ay tribunal ñu koy ngaw ci ngaw te yóbbu fii yóbbu fële alors am na yeneen possibilité yoo xam ne mën nga ci bañ a àgg non seulement ça permettra de désengorger un peu les bureaux des juges et autres parce que la ñu yore ci dossier peut-être dina wàññeeku mais au moins euh, yenn ci ay euh, situations yi mën nañ ko régler euh, ci anam boo xamee ni du indi yenn conflits yi. muy noonu donc fu mu nekk nii xanaa def rek xëy na peut-être.